et femmes, Pikin, téléphone 77 253 13 98. Ramses Shop est spécialisé dans la vente des tissus chics HLM5 en face de la poste. Téléphone 77 017 81 05. Le groupe scolaire Le Jardin des élus, ex-royaume des enfants, a le plaisir de vous informer de l'ouverture de l'année scolaire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 dawal gaaw librairie papeterie daraji ji di nga fa fekk gaamu kay yu baax yu marque bii di conquérant te it am nañ ci stock bu doy te lépp loo soxla ci say fourniture yi doom ak lépp loo xam ne élève da koy soxla ak école am nañu ko ay sac de qualité ay stylo yu baax livre yi nekk au programme lépp lu école di soxla boo demee LPD fekk ko fa ci ay njëg yoo xam ne mënoo ko am fenn dañuy jaay un gros pour dëkk yi jaay demi gros pour école yi ba noppi jaay détail librairie papeterie daraji par force da ngay am satisfaction dawal gaaw nga rue 14 angle 45 le numéro téléphone bi 33 823 41 30 33 823 41 30 ou le 77 644 01 56 am place de Médina parcelle Asseni, Chess Chess, Mbour. visitez leen suñu site web www.lpdsenegal.com Population de Kounoun, Kurngailo, Kurdaoulessar, Kurmesar, Almadide, Sangalkam, votre attention s'il vous plaît. Situé dans le cadre paisible de Fas Kounoun, dans le département de le groupe scolaire Le Jardin des élus, ex-royaume des enfants, a le plaisir de vous informer de l'ouverture de l'année scolaire chers élèves, chers parents, le groupe scolaire, le jardin des élus, avec ses salles de classe aux dimensions standards internationales, un personnel enseignant compétent et dynamique, une salle informatique de la maternelle à l'élémentaire, des bus de transport alliant sécurité et ponctualité, une cantine scolaire qui permet à l'élève de passer la journée à l'école en toute tranquillité, des salles multimédia, des cours d'anglais et d'arabe, du préscolaire à l'élémentaire. Au groupe scolaire, le jardin des élus, l'innovation et l'excellence sont au cœur de nos préoccupations. Pour toute information, appelez-nous au 77 526 65 97 ou le 77 226 14 18. Mail le jardin des élus élus.com Notre site web www.lejardindeselus.com.

tapis rouge n'est chaque année c'est magal de pouvoir a gën spécial 18 safar 18 safar promo extraordinaire le réduction 45 sur l'ensemble de nos articles Nous les découvrir sur une chambre à coucher luxueuse ultra moderne à 650 000 francs à 799 000 francs suñuy salon 7 places à 599 000 francs. francs salle à manger bibliothèque vaisselle électroménager accessoires de décoration intérieure le tout ci ay njëkk yoo ko am fenn boo jëndee salon ñu may le coussin ak moquette xanaa ay wax day chambre à coucher promo ñu may la chaise bi si gën neex chambre à coucher VIP ñu may le panier surprise ku ci bëgg am service commercial bu tapis rouge Touba au 70 77 273 79 79. Tapis rouge Dakar 77 730 87 87. Tapis rouge Zac 77 491 89 89. Tapis rouge Mour 77 083 25 35. Tapis rouge Dignanel Magalou Jam Dignanel di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla na tapis rouge, faites la différence. Et puis j'ai pour le bide. Mariétou maa ngi jéggalu de yàq naa seen amul solo lu waroon am la rek Mariétou man sax pour tam ko fàtte naa sax li olof njaay naan dëmm du lekk jaxatu man yooyu gaw ko yow xam nga loolu sax jubluwuma ci lu dul rek ñépp lekk ci sama añ bi Alima wuy bàyyi lépp si loxo yàlla yàlla xam na lépp te dina leeral lépp. Mariétou est-ce que gëm nga ni man tamuma ko. moo ko tam. tamu ko sagar. gis mo ko saytane yow kii wax ñépp di dégg nga bëgg koo solon bu avocat. <laughs> défendre ma ko de. dafa deret nit boko yóbbu police da ngay tek ci sa loxo lu palpable lu nit mën gis waye Alima li nekk ci xolam ak xelam ken mënu ko xam jaxato rek la tek batay new ko dëmm nga. Ngoné est-ce que tamit doomu dimbali yow kër go sey tas ko li motax tax Lamine bàyyi ci kër bi ma tanee la ko ndax au moins man amna naa sëy safaara rab boobu jëm ko faji saga so ma ko waxate man nopp Ya, yaw heure bu ñu waxee nga ne da ngay saaga tey laay woon Sénégal li ma la magee yow. <laughs> maar maar mën naa nangu maar mën naa nangu ñu takk la xalaat boo ci man doo man dara ma mën na nangu kër gi lu fi ñu la ma ma sa kër gi mukk sa kër di la muñal di nek say di bàyyi sa ay di may tab dem ma du ma nangu ko ma tab dem. soo amee lu la metti du nii nga koy lijjanti da ngay dal da dal bàyyi jooy la ngay jooy. bàyyil jooy yi. maa mi maa man damaa set wecc man damaa set wecc man xamul lu dugub ak soow damaa set wecc. wuy may tam dem ma li ñuy wax yëpp yëpp yëpp li ñuy wax lépp lu man xam naa lan moo ko dañoo bëgg man ak yow ñu tàggati ko dañoo bëgg tàggati ko boo tax. wuy ma xoolal wuy eh, jooy wuy sa jooy. ma eh, bàyyi jooy. may ma sama baat may ma sama baat bu nekk nekk ci jàmm. xoolal da mën wax ju rëy bàyyil wax ju rëy. wax jooju moom dama bëgg nga jël ko nga teg ko ci suuf tegal wax yooyu ci suuf. man li may lijjanti dinaa ko lijjanti bàyyil ma dem wax ak Alima mu ñëw jéggalu la comme sax ñëpp nekk ci jàmm ku ne nekk ci jàmm loolu moom moo ay waxu may ma sama baat ak ay waxu yooyu bàyyi ko. Bigué ana Malal. Malal paa naa ko insisté naa ba sonn jotuma ko. Bigué Malal faw nga jot ko faw nga jot ko. bu ñëwee fii ngeen fuyal ma néeg yëpp bu leen bàyyi benn néeg. mais loolu màngoo ne mën nañ ko def jarul malal di ñëw. kon baax na wol ma sa ñoom yaay ak yéen ñëpp ngeen ñëw. Alima gis nga sukk du la tax a yóbbu say oom lépp xel la ak xalaat demal nga ne ko danga nga juum nga jéggal ko ñu ñu jàll ci leneen. lu tax may jéggalu Fanta du ma jéggalu su ma jéggaloo dafay mel ni damaa tooñ. damay dëggal ni damaa tooñ te tooñu ma gis nga wax dafa am dégg am moom moo ko déggee ni mu ko neexee. nan la ko gisee. waaw. Oh. baax na sa papa. papa mi ci biir. nee naa ko war Alima. Hmm, Alima. kaay nga wuyu papa. dimbali ma rek nag. within the bedroom. Don't go and carry ma. Ma, Udah baik. Ma, ya udah ma. Tau gak? Alima xam nga lan laa bëgg nga jug léegi dem ci néegu ak. ma baal ak pour lan la ko def. mi ngi ngi li nga ko def dang ko faté mi dang ko tam dëmm. wayo man dama dof bay tam ba to dëmm te ma xam li nga bokk ak mom suma ko tamé kay moy tam na la tamale sama dom bi nga xam ne maa ngi yow ñoko bokk jur lolu amul sens jaxatu dafa neex ci supu kànja rek ngeen ni dama ko tam. man tam nga ko wala tamoo ko man sa jëkkër maa la jox ndigal te li ma bëgg moom ngay def jugal léegi nga dugg ci néegu batool nga baalu ci ko ak man loolu laa bëgg. waaye Marlo da fàtte wala. fii fàtte xaju fi soxna fii la bëgg a rey sama doom tàngal diwlin ba mu tàng te daf ma koy sotti bu du yow tey maa ngi àllaaxira heure bii. te bobu est ce da nga insister pour mu ñew baluma tay nga tok fi nan ma dama nga balu soxna du moko balu ak tay du moko balu ak suba balu moko ta du moko def. Alima Alima bigel Bigué. Bigué ana ma la manqué woo rek jotaguma ko de. lan mooy man koy woo jotaguma ko lan mooy loolu et foog nga jot ko ah insister pour jot ma la dama ko soxla léegi. waaw d'accord baax na maa Alla foo non damay gontu. gontu doo jox siiru man bi sa taxi bi mu gontu la. lu mau ma si Allah, Allah, rumaan. yang kër gi jin, ngi toj dalam def di daa sa di fanaanal. su nga si sikk na bépp sikk waaye fan yi dañ koy Tuan. Allah, bulan bok kejaran muk ngai mukk sok nabo tuan. Fi kan mau ko fi tam tamu fi. tam. tam mooy ñu ne la dëmm bi. gis nga junj doy na borom xel te wax ju yegg dafa ko moom. Marie. Marlo moo woote xanaa béegee waxuloo ko. xanaa woo woon sa ñoom yaay. toog na. lenn nag laa leen di xamal. kundo bi rey sa maam foo seetlu ñuul dangay ngay man nag. kenn dootuma waxati ci kaw suuf jël say responsabilité ndax man loo taal samay responsabilité dama koy jël ba mu mat sëkk li fi xew sànq nag dootu fi amati ndax bu ngeen waxalee yàlla rek te dëgg rek tax xam ngeen ni alima moo tooy dinaa woo ay waajuram nag wax ak ñoom gis nga li fi am bu fi amaatee ku ko fi mën a defati di nga jot sama jikko beneen bi mooy ngóone dama bëgg nga ànd ak fat nga dem ci néegu Fanta ngeen fuy foofu néeg bi yëpp bu ngeen ca jógee ngeen dem néegu Alima ngeen fuyee foofu yëpp taftal ca Mariette ak soxla ba Bada lu ngeen fa gis muy téere andil leen ko ndax dégg ngeen yéen laay waxal de dégg ngeen bu baax ngoone biige jóg leen ngeen dem eh yow fan nga jëm. damay dem sama nit damay saw. Eh, taxawal boo bëggee saw dama ci dus bi ñëpp bokk wala nga toog di yàggu. Aujourd'hui, c'est le jour. Je dois briller, épater, éblouir. Ma devise bien dans ma peau, bien dans ma tête. Ok, je suis prête. C'est parti. Présentation dans 3, 2, 1. Être bien dans sa peau, c'est être bien dans sa tête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 maar seet naa néegu Marietou néegu Alima néegu Fanta mais gisuñu fa dara de. am na néeg des de. ban néeg moo des noonu. xanaa néegu soxna ba toog. loolu amul sens. di xool néegu soxna ba toog ban sens la am. amul benn sens. loolu mooy dem reyal a jaarale daal. Ah. sagar. moom ñun ñëpp ñoo fi yam di say xool nañ ñeebi ñett ñi nañu xool néega sa jóge ñu dem wax ah, dëgg lu ma la wax soxna Bato eh, eh. dew ma eh, kii lim mu la wax mooy dëgg ah mënoo fi nekk ak say morom ñu xool seen néeg ñoom ñëpp te yow kenn du xool sa néeg jugal nga ànd ak ñoom dew ma yow bàjjan xanaa déggul sama baat wax jugal eh, nga dem jugal nga dem liggéey ana Malal. Malal paa woo naa ko insisté naa ba sonn jotuma ko. Bigué Malal faw nga jot ko am ah. faw nga jot ko bu ñëwee fii ngeen fuyal ma néeg yëpp bu leen bàyyi benn néeg. mais paa loolu màngoo ne mën nañ ko def jarul Malal di ñëw. kon baax na wol ma sa ñoom yaay ak yéen yëpp ngeen ñëw.

Ali ma expliqué na ma lépp netali nettali xuloo la Way limu wax nak ni njuumte la te ku jum da ngay Jere jërëjëf papa Kaddu yi am solo te yit dama ko rafetlu ndax yefu kilifa rek nga def ndax kilifa ni la wala comporté wu gis nga alima mi yalla dafa dogal ni man ak mom dañoo yag mu taxawoma bor bu nek taxawuna ma ci sama liggey taxawuna ma ci leneen lu sax liggey kon yag bi may wax deug la jam nak la bëgg ci ak ay wujjo te insha allah rabbi ci jàmm jooju dinaa ci wax dinaa ci wax dinaa ci dox dinaa ci def ba jàmm ci dellu si waat insha allahu rabbi soobee yàlla loolu lay def dégg la sa papa wax dégg naa ko kay nit nag mhm. euh, wax balu fetal nit buy wax day xool bu baax li muy wax ndax kat wax balu fetal bis bu xasee ba génn ci sa gémmiñ kenn mëntu koo dam mais man yow dama la méré dé war nga ma taaj sama digg naaw la yépp nga humilier ya, ma nan ma man ma toy lol mom waroo ko def eh, dama bëgg nga xam ni bis ni ki képp ku fi defati safar dina la taaj ci pénc bi wax la li la bëgg wax ñëpp nag laa ci yemale ya, xaw ma xaj xaw ma set ma ba toog ma ba pare nga ñëw fekk ma ci néeg bi dafa am lu ma lay wax alima defee ko ni ma la waxee d'accord amul problème dina baax incha allah man de ci sëriñ bi laa bëggoon dellu nii pour mu wax ma lan mooy solution puisque xale bi seet nañ ko si kër gi yëpp gisuñu ko. <laughs> damal toog damal toog. ah damay wax rek alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla nag bu baax a baax a di demoon dikkat. noonu. waaw soxna Batoor moom moo dem ci benn sëriñ ba wax dëgg yàlla sëriñ bi faj na ko fi ne nii moom maa sant yàlla bu baax a baax. sagar li yomb na de est wóor na. ngoone daal yaa des yow wér lañ bëggoon wér na léegi lan mooy problème bi waaw yow yow lan moo xew hmm? moom bëgg na sagal ma ayewuma ay ba ci lan ba ci ko nar a kàmm géej lay yow ci biir néeg bi heure bii yow xanaa da ngaa fàtte ne man samay doom ñu ngi ci kër dama fàtte lool. eh bul dof yaa gën a xam ne sa doom yii yeewu nañu mais bu du doon liggéeyu guddi bi est-ce que ñoom dinañ juddu bu doon liggéeyu guddi bi ñoom duñ juddu di. mu ngi noonu. wax nga wax jëpp guddi nga wax te guddi nag dafa ànd ak sutur man magum jëm duma nekk ak yow ci néeg bii bàyyi samay doom ci biti même bu dara mag dafa war wutal boppam war ma yow kan moo la wax ni man mën naa ku la ko wax <laughs> man nga kay suma daanu mu si lu ñu lay xeebee. Mareetu man lu ma def waxuma la ba lekk dangaa def de franchement soxna est-ce que du yow yaa takk maar xalaat. Mareetu man nan lay takkee maar su ñëwee ci yéen mu neex su ñëwee ci man du neex su ma ko doon def kay dama koy xiir ci yéen mu bañ neex ci yéen di neex ci man. man lolo ma jaxal mais dama tëdd dañu won mako ci gënt sa gënt nak na la de dégg naa nag xale jigéen dañ lay tak xala ba pare depp ko soxna nëbboo ma dara mareetu man ko mala dara sa mag ji degna xala biñ ko takkon werna waw ki moko moo ko faj soxna ko faj pour yow kan mo takkon mar xala man de may baña bokk waye buma joomul fanta seydi <laughs> ay fanta seydi kay du fanta seydi de soxna botoor moomu la xanaa xamoo xale jigen dañuy tak seen jëkkër xala ba paré depp ko pour bëgg ko jiñ seeni wujju ah kon xale jigen non noonu def waaw dañuy takk dañuy takk seen jëkkër xale ba noppi duñ ko seen wujj. ah def. waaw yow sax foo xamee loolu.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

et femmes, Pikin, Taliboumak, téléphone 77 253 13 98. Ramses Shop est spécialisé dans la vente des tissus chics HLM5 en face de la poste. Téléphone 77 017 81 05. Le groupe scolaire Le Jardin des élus, ex-royaume des enfants, a le plaisir de vous informer de l'ouverture de l'année scolaire. Béaz, moi parfum il y a pour